yaa ngi nuyu naa la. sant yàlla. tey ñu gis la nga ànd ak sa xarit sa rak muy ki nga xam mooy Boy Pire naka ngeen ko àndee. waaw waaj ko rek ñu ànd contact liggéey mu ne suñu frère ñu ngi ko ndam bu baax baax lu ñu suñu bopp ñu ngi ko ànd ak moom contact ànd ko ñaan yàlla may si si kaw koo ñaan ku ñaan bu baax ndam ak si ginnaaw yee. yow foo toll. maa ngi waaj di liggéey sama staff te samay entraînement. dañ doon dañ doon dégg sa combat spécial ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye mais jékki-jékki gis ñu génn la ci lu waral lool. waaw ah, am xam nga jaam ak pexeem yàlla doxalam laxaat bëggoon na ko ba si biir mais amatul mais instant yii maa ngi xaar grand combat léegi tey incha allah. grand sa diggante ñan la ñuy wax. waaw maa doomu ngéwël. da ngaa ñëw droit sa diggante am ñëpp ngaa ñëw amee mu ngéwël. lamb milieu la. nante yi dama moom mi ngi ko baax bu taxawee moom na woo seen i kawkat man ma woo suñuy kawkat ñu su bëggee man moom ñu kaw. mais su diggante bu Ngéwél loolu la parce que affaire dafa gaaw mu daan rek ku doon ñu ne caatu caatu bu Ngéwél Niang bu Ndaw Ama bu Ngéwél Niang bu lamb xale la combat soxla lamb xale la combat soxla. Ama bu Ngéwél daanaan la nag de. man lamb nangul ma. gis ngeen ni def ko man du ma ndaama de ay ndaama lay ndogoon mais man ñaamu ndaw mbër mi njool mi càppaacolu bi. aka dégg te mën a fecc nag. avenir u Guédiawaye yaakaaru Guédiawaye man caaxaan waruma man maa ngi yaakaar ne balaa ma ko fooyee ba ma xoolee ba ma bëree pare ak léegi xam naa ma ko fooyee te at ma ngeewal lu mu xool ba ñëwee ma at bu siflee dina xam ndax ñaar Hercule la wala ñaar ñeneen la yàlla baax dégg bi ci amee bu géwél bu tuusee ñëpp kontaan. waaw day neex rek day mel sama combat maa ngi rëb bu tuusee ma tuuse lamb ci sax ñu bëre kële waaw mooy loolu xale laa damaa nekk si yoon aroom ngi woon sax doon ma maa sama adversaire. ko xam nga lu ma wax maa ngi dégg Talfa Fee nee na sa diggante yow ak moom lamb ko daax waaw maa boo yëpp lamb la ay xale lañ ñëpp lamb mën ñu boole ku si nekk da nga liggéey liggéey rek waaw jof lu bëri wax tuuti lamb xale loolu la. kontaan naa ci. maa la gën a bëgg. booy bi nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay. ci loone sant alhamdulilah. tey naka nga ñëwee sa diggante Kognan Kognan gis ko ci ay ay défaite nga teg ay victoire naka nga ñëwee sa diggante ak moom. waaw comme ni ma daan waajee yeneen combat yi rek. adversaire la comme yeneen adversaire yi. adversaire la buñ jox cër la. dañ koo jox cër ndax euh, lim ñu mën a yàqal moo bari. lim ñu mën a yàqal. waaw lim ñu mën a yàqal dafa bari. dañoo liggéey lu rëy. kon Kognan 2 koo mën a këpp li ñu a liggéey li liggéey mais est que xam nga ne Kogna tey amul droit def erreur. waaw amul droit def erreur man mii di wax ak yow awma droit def erreur moom lañ ko féetale mais man sama bopp laa ko féetale awma droit def erreur. mais tey ma gis nga ñëw waa écurie Walo yëpp ànd ak yow gunge la tey ci bés bi xeebalu ñu la ko benn yoon. waa gis nga bés la te gars yi xam rek dañoo baax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi écurie Walo ñëpp benn lañ waaw mooy kontaan bu baax a baax te dañ maa teg lu métti kon tey dama war a ñëw yan ko Kogna te gëm naa ne li ma liggéey war ko àttanu ko di nga xeex lépp lu mu laaj dañ koy def incha allah rabbi mais lu ñu def daal day wóor loolu daal la am looy wax. ah loolu la ki loolu la ki ne la am na leen. loolu la demee nag loolu laay indi.